asalaamaaleykum téléspectateur Rafah TV amaat nañ mbégte ak bànneex di jàkkaaroo yéen ci yu mel nii ginnaaw bu ñu leen nuyoo siyaar leen jaajëfal leen ci at mu bees mi ñuy dugg noonu lañ leen di ñaanalee fépp fu waay mën na nekk ñuy ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha xalif général kullu murid di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér dañuy génn ci atum 2021 muy at mu bari ay xew-xew am na ci ay xew-xewi xew naqar am na ci yey bànneex ci la ñuy profité di ci occasionné wu di yeesal sunuy njaal ak sunuy ñaan ci kilifay diine yi nga xam ne bàyyeekoo nañ fi wuy ji seen borom di leen ñaanal fa ñu nekk gënal leen fi ñu jóge ci biir xew-xew yooyu nag ci lañuy tànn leen ci biir fa seeni ko teg ci taabal bi waxtaan ko ak yéen ñi nga xam ne yéen nañuy safoo ci Rafah bi. bayit boobu ci Tuubaa doon wax naan lil Mustafa li banal xudduusu madrasatan bihaa yazulul aza wal jahlu wal kabat muy ñaan suñu borom subhaanahu wa taala ci barke bi yonent bi salaa mu wutal ko daa daara jànguwaay boo xamante ni ca daara xudduus lay nekk li badnal xudduus kon ci ci barkeb al xudduusu mooy suñu borom subhaanahu wa taala waaye mu mel ni mu yegg leen naal yi nga xamante ni moom la fi mag ñi bàyyi woon ku mel ni Cheikh Abdoul Ahad nga xam ne naaloon na fi université nga gis 37 milliards ku ko nangoo def ci investissement ci xam loolu yaakaar naa guléet la ci koo xamante ni daanaka ci communauté bi nga xam ne ci nga nekk nga ko woote amul benn financement boo xamante ni jugee na ci internationaux yi wala ci national amul kenn koo xamante ni laaj nañ ko muy ci wàllu nguur gi laajuñ fi kenn dara lépp Sëñ Muntaxa la pas-pasam waaye ak pas-pasu taalibe yi nga xamante ni ñoo ànd ak moom. may wax ni lii nga xamante ni tey ñoom moom la ñuy xeex maanaam damay wax ni ña ko indi li ñu tuddee terrorisme la ñoom dañoo bëgg a terroriser mentalement ndax du dara lu dul ñoom yàq nañ seeni ndaw ba seen ndaw gëmatuñ li ñuy tuddee diine gëmatuñ li ñuy tuddee ruux ñoom bakkan lañ gëm ak bànneex fan yi maa ngi liir ci euh, euh, kii benn maa ngi seetaan Jazira ñuy def benn genre documentaire di wax maanaam lu tax réewu Europe yi di jaay seen église yi jullit yi ñu di ko def ay jàkk loolu lan moo leen ci poussé lu dara lu dul maanaam ndaw ya ñoo gëmatul diine. mën nañoo wax ne Rafah TV Euh, daa nekk gone ci biir médias yi ci niñ ko mën a waxee ndax daa bokk ci ñu mujj juddu waaye bokk ci ñu gën a sori vision bokk it ci ñu gën a yaatu ay jéego ci dox jëm ci kanam yëg gi mu yëg loolu xam gi mu xam loolu xam na mbir mi kat lu moomeelu kenn moomeelu ki nga xamee ne daa am yitte ngir bëgg koo jël rek la ba mu xamee loolu rek mu ne man sama yitte yemuma la mu ko rek ci euh, naa produit daa def ay production ci wàllum émission Saint-Blair na dikk def émission déedéet. waaye naa ko gën a yaatal ci askan wi gën ko yaatal ci adduna bi bañ xam ne kat euh, man ci lii laa yëngu waaye ci lii may yëngu nii laa ci yëngoo ndax lii moo ne moo war a nekk taxawaay bi nga xamee ne ci lañ war a yëngu mu nekk une leçon boo xamee ne joxe na ko ci mboolem ku yëngu ci wàllu média nga war a am benn gis-gis bu sore sore sore moom loolu la def ndax li ko may loolu mooy bu mu dikkee daal siq ay jéego yu am am solo fi mu fekk média bi ah, ak lim ci def ba tax euh, tey bu ñu joxaatee benn gëdd presse locale bu Touba Euh, du ma ne moom la à 100 pour cent mais participer na ci ndax bi mu dikkee def na fulla ak fayda ndax dañuy wax ne waxambaane bukki bu ñu ko yabee rek ca doxin wala moom nag daa dikk xool na doxin nii laa war a dox damay dox dëgg samay tànk dox doxinu jub xool la ma xamee ne moom a jug ma jë dëgmal ci moom mu def li nga xamee ne amu fi woon mu fexe ba amal ko fi yi nga xamee ne dafay amoon te nekkul noonu mu jubbanti ko waaw ah, te ah, mu jubbanti li nga xamee ne moo fi waroon nekk rawat na nag jaare ko ci ay teggiin jaare ko ci xam-xam ko ci yoon woo xamee ne rafet la bu dee boobu la xëy na oto bi nga xamante ne day daw te amuti kayit say say say say droit matut il fallait que nga fay loo xamante ne nag dañ lay dañ lay dañ lay attesté nga fay ko nga dem fay ko ci yoon xëy na nag beneen affaire la ci am man nga am nga attesté attestation boo xamante ne du rekk attestation légale loolu moom beneen affaire la waaye bu fekkee li nga xamante ne yaa ngi koy fay oto bi nga xamante ne yow valable ñu fay la ko mu delluwaat ci mbuusu réew mi mooy ci gafak ak réew mi loolu moom wàññiwul dara parce que yaa jéggi say droit parce que dafa am tubaab bi defar oto daf ko wutal ay normes oto exemple pare-brise bi bu tojee waroo ko dawal. waroo dawal dawal oto pare-brise bu toj oto bu feu tojee waroo ko dawal oto bu gisee benn lu ci nekk loo xamante mën naa indi jéeye waroo ko dawal léegi nag soo jëlee risque di ko dawal buñ la attesté da ngaa war a dem nag fay ko te xam ne te xam ne loolu ci yow yow yow mi génne xaalis bi yaa fay sa bopp parce que ñi lay fayu yaa leen pour ñu fay la. Eh, atum ngi ñun suñu at duggoon na jax atam xarit waaye ci niñ koy faral di waxee rek ci wax ay anniversaire yooyu dañu am loo euh, ah, ah, xam ne xam naa suñu bisu juddu euh, euh, deux février non non deux février ayca kon yéen ñaar rek dañuy boole rek di leen soyetondo di leen ñaar ñëpp Cheikh Fadel yow amoo kon yow atum ngelaw ma ngay jàpp wala nga jàpp ca taw ba kon defal nañ la ko baraxlu côté màggal daaw monsieur ay ca yéen ñëpp kon ñoo ngi leen di ñaanal seen bisu judd yooyu lépp lu ngeen sumb rek yàlla jàppale leen ci maa ngi sant nag équipe technique bi nga xam ne ñoo nekkoon ci ginnaaw ba ngeen mën ñoo xool euh, ñi ngi jiital nag PDG Mourtala moom nag dañ koy baalu àq di ko sant sonal nañ ko lool nag waaye lépp nag ak woyefam la bay Serigne moom tamit jàppoon na ci caméra bi Serigne Abdou Baaxe jóge ba Istixaama moom tamit ñu ngi koy jaajëfal bu baax Baye Amsa ak sama mag yi bopp soxna Satu Ndiaye jàpp na ci musóor gi xam naa moo teree mu wadd ngeen leen di jox nag dig daje beneen yoon soxna Naar ñoo ngi koy sant tamit ci photo yi moom tamit jàkkaaroo naa ak ñun moom tamit <laughs> ñoo ngi koy sant ba di ñaan at mi nga xam ne ñu ngi ciy dugg ñu dugg ci ak mbégte ak jàmm ju sax dàkk ñaanal sunu xalifa bi sëñ Muntaxa mu yàgg fi lool lool te wér eh, di sant nag ñi nga xam ne ñoo doon topp Rafah TV rawatina. taamu seen émission ak lu xasida ñoo ngi gis lépp nag suñu soppe ak suñuy xarit ñëpp ñoo ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen wax ne rek woy leen abonné wu lii ñëw ci atum 2022 bi mooy dàq fuuf ndax Rafah TV lépp lu leen soxal rek daf ciy def ay yitteem di leen jox dig daje ci suñu beneen jotaay jërë ngeen jëf